so the Ministry of Health. Uh, ñii di uh, Ministry of Health dañ am lii di nga xam ne moo di risk communication group bu nga xam ne nag ñoom ñu ngi daal di uh, dox si biir réew mi fii nii yëpp di dem sa radio yi ak télévision yi pour daal di àggali lii di nga xam ne nag moo nekk xibaar yi nii si biir réew mi fii nii te nag xibaar yi nag dara la lu nga xam ne lu óor la gis nañ lii di nga xam ne moo nekk vaccine yi yeneen dëkk yi ñu ngi ko daal di nangu pour mu dugg seen biir réew kon nag mbir mi dara la lu nga xam ne nag lu wóor la su fekkee ne naka óorut ñun duñ ko fi musa asi si biir réew Gambia ñun nag daal dinañ gis lii di nga xam ne nag moo nekk suñ nit yi seen interest kon nag loolu moo waral ñu daal di dugal suñu loxo sa mbir mi nag su nekkee ne nag lii dara lu nga xam ne dina lor nit yi kon nag ñun du si duñ si daal di duga te nag ñun dinañ bokk si nit yi nga xam ne nag dinañ jël mbir mi balaa ñu ko daal jox ñeneen yi